بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد بك صحنا يتي أوبراسيون مرسيتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلين دي نيو دي لنيان الجام دي كساكو تيين دي نيو تي سنو جوتاي من نيمورو 1 تي فقه الأسرة مويلي أجو تي كرغي sunu introduction bi leeraloon nañ fa lu yaato yaatu boobu nag dafa xawoon a gudd waaye bii dinañ ko tënk incha allah ñu ko tomb par tomb tomb par tomb euh, tey li ñuy bëgg a jël ci sunu jotaay tey mooy al xikmatu min mashruiyati nikaax euh, tey buñ la laajoon yow góor wala yow jigéen lan moo tax borom bi subhanahu wa yoonal takkante yoonal sëy loolu buñ la ko laajoon lan nga ci mën a tontu laaj bu am solo la waaye tontu la goo xam ne tamit tontu gu am solo la war a àndal ndax lépp loo gis rekk borom bi subhaanahu wa taala santaane ko digle ko ci jaamu yàlla Euh, pour ñu xam lan mooy njëriñam dafay am ñaari taxawaay benn taxawaay bi ci njëkk mooy lépp loo xam ni borom bi subhaanahu wa taala da koo santaane muy julli muy woor muy joxe azaka muy digle lu baax muy tere lu bon illa bi mooy cause bi li tax yàlla digle ko li ci njëkk mooy li taabud mooy ngir jaamoo ko yàlla la kon te bu la neexoon bu la neexoon waaw soxna si sëy la moo tax yàlla borom bi subhanahu wa taala yoonal ko mun nga ne ngir ñu jaamu ci yàlla la sunu borom subhanahu wa taala buñ la laajoon waa tey la moo tax borom bi subhanahu wa taala santaane ñu julli wala ñu woor wala ñu dem aji màkka wala wala da nga naan ngir ñu jaamoo ko yàlla la loolu mooy bi ci njëkk ñaareelu illa bi nga xam ni moom mooy ñëwaat ci lu tax yàlla di digle yenn jaamu yàlla yi jaamu yàlla bu nekk nag bu boobaa ak li nga xam ne moo tax borom bi subhaanahu wa taala digle ko illa bi daf ciy feeñ daan defal nàngam ngir nàngam defal nàngam ngir nga am nàngam ma jox la ci misaal borom bi nee na yaa ayuha alladina aamanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun te yéen gëm yàlla faratal naa ci yéen koor comme ni ma ko farataale ci ñi leen jiitoon ngir ngeen am ragal yàlla kon bokk na ci li tax yàlla digle li nga xam ne moom mooy kor mooy ngir ñu jëlee ci ragal yàlla beneen bi mooy dafa am mbir yoo xam ne yu naturel la dafa ànd ak jaamu yàlla ci benn côté beneen côté bi nekk loo xam ne lu naturel la lu mel ni sol yére benn côté bi jaamu yàlla la benn côté bi lu naturel la ndax nit ak ni ko borom bi subhaanahu wa taala bindee xel bi mu ko jox yëg-yëg bi ko bi ko jox santiment bu mu ko jox jomb na muy def yaramu neen di génn ci mbedd mi solo dara nga mel ni la sa yaay jure woon loolu nit jomb na loolu ku ànd ak xelam kon loolu la nga gis ni lu naturel la ba la ko lislaam santul sax yow ci sa nite dangay sol ay yére beneen bi mooy beneen côté bi jaamu yàlla la moo tax naan jigéen nii lay muuroo ci lislaam góor nii lay soloo ci lislaam lekk ak naan borom bi subhaanahu wa taala bindul doomu aadama boo xam ne du lekk du naan kon loolu lu naturel la nga xiif nga war a lekk nga war a naan kon noonu tamit ngay lekkee di naane borom bi ne lekk leen naan leen waaye bu leen yàq beneen côté bi nekk côté boo xam ne ibaada la mooy bul naan sàngara bu lekk mbaam xuux bu lekk medd kon gis nga ci biir lekk bi lekk lu naturel la waaye ci biir lekk am na côté boo xam ne jaamu yàlla la sëy noonu la mel takkante noonu la mel sëy besoin la maanaam soxla la bu nit am mu ngi mel ni nit ki ni muy demee ci wanag di bëgg tuur dugub tuur dugub bëgg tuur ndox tuur ndox mar na naan mu naan xiif na mu lekk dafa gëmmentu mu tëdd di nelaw loolu lu naturel la ci doomu aadama ba dafa soxla la ci moom xaaja la kon sëy noonu la mel ci doomu aadama xarisa jinsiya lañ koy tuddee maan loo xam ne sa yaram ci boppam da koy soxla da koy laaj pour nga defal ko ko ni yaramu di mare ndox pour mu naan bu maré rek day am lu déclencher yow kat da nga mar nga dem naan sey nonu la mel xarisa jinsiya la kon tay bu len neexon sax nga ne lutax nit di lajante lolu nga ne ah jarul laaj ndax lolu naturel way nak nag akamata laaj akamata laaj bu bah, baakha baakha baakha kon alxikmatu min mashruuciyati nikaax lan mooy xikma bi nekk lan moo làqu ginnaaw bi nga xam ni borom bi subxaanahu wa taala santaane nañu sëy lan moo ci làqu comme ay àtte bi ci njëkk moom mooy almuxaafadatu ala nasli wa yi mooy yàlla sunu borom subxaanahu wa ci xikmaam fi mu def doomu aadama yi ngir ñu mën a sàmm li nga xam ne mooy seeni askan ba noppi doomu aadama continuer di des ci kaw suuf ci sëy la ko jaarale nasl mooy loolu nas nasl mooy sëy bokk na ci njëriñam mooy day am ku nekk ku tudd pàppa am ko tudd yaay ku tudd nijaay baay tëx maam maam mataar jarbaat ak yooyu loolu bu sëy amee ba pare ba njaboot juddu ci ci la askan boobu di am loolu loolu moo leen tuddee nasl loolu pour ñu mën koo sàmm pàppa am yaay am bàjjen am tànta am nijaay am loolu ci sëy la mën a amee fow góor ak jigéen ñu may leen ci lu dagan ñu ànd sëy loolu mën a nekk bu fekkee loolu amul dañ naan kii doomu njaaloo la masalan am na yaay waaye amul papa ci lislaam moo tax ñu ne du donn du donn côté baayam côté yaayam lay donnee côté yaayam lay donne kon nas la boobu pour ñu mën koo sàmm foo mu am sinon nit bu juree doom te jaarul ci sëy maanaam yaay rek la mën a am nijaay rek la mën a am maanaam tànt bi bokk ak yaayam rek la mën a am mais bàjjen bàyyi tëx maam bu góor loolu mënu koo am kon ngir ñu mën a sàmm askan bi ñii ñu ne ñooy askanu ñoom diw ñii ay pël lañ ñii ay wolof lañ ñii ay séeréer lañ waaye ci biir pël bi ci biir wolof bi ci biir séeréer bi diw ak diw lañ bokk lii lañ bokk ci côté baay diw ak diw ñoo bokk lii lañ bokk ci côté yaay loolu ci sëy rek la mën a amee moo tax lislaam di ci sonn lool pour loolu ñu mën koo sàmm waaye wastimraarihi nit ma nekk fi ba keroog bis penc di taxaw bu dee bu la nee nga ne kon diggante góor ak jigéen loolu tool la tool boobu ci lañuy jëmbatee li nga xam ne moom meññent bi bu ko defee mu daal di jur ay doom comme ni nga amee sa toolu mango sa toolu ñembi sa toolu papa ila akhiri moo tax borom bi ne nisaa'ukum xarsun lakum fa'tu xarsakum anna shi'tum seeni soxna seeni tool lañ dikkee leen seeni tool ni mu leen soobee bi maanaam foofu ngay jëmbat bu ëllëgee nga mën a góob loolu moom mooy bi ci njëkk jàpp ko bind ko wala nga note ko bu baax a baax bokk na ci li koy tegtal borom bi nee na huwa anshaakum min al ardi wastaamarakum fiha moo leen sosee ci suuf ba pare di leen dundal ci suuf si ngeen mën cee continuer ñaareel bi ci li tax yàlla yoonal sëy mooy xusulul iffa mooy ngir nit ki mën a fegu li ñu wax sànq besoin la ngir nga mën a feg sa fi ngay suuxat tool bi nga yor nga war koo suuxat mu nekk suuxat goo xam gu baax la ngay am soxna wala nga am borom kër lislaam dafa xaraamal njaaloo diggante góor ak jigéen ngir nga mën a fegu nag comme que loolu besoin la mënta ñàkk ci ku yonent daal di yoonal li nga xam ne moom mooy sëy yonent bi nee na man istataa minkum al fal yatazawaj fa innahu agaddu lil basar wa axsanu lil farj mooy mën a fegu ci soxna nga ko mën a amee boroom kër ñetteel bi mooy al mawaddata al mawaddatu wal ulfa mooy mbëggeel bu legal ak miineel ak tappaloo diggante góor ak jigéen mu nekk sa mbàjj nga nekk mbàjjam ci sëy lay jaare pour loolu mën a dagan ci sëy lay jaare loolu mën a dagan borom bi neen wa min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa raxma ci sama aaya la bokk ma bind ci yéen ay soxna ak ay boroom kër ngir ngeen ci daloo waaye ma def seen diggante mu nekk yërmande ak mbëggeel mbëggeel pour mu légal ci yow nga defal ko nit mu nekk nobeel boobu nga nopp nit day nekk soxna wala nga nokk mu nekk sa borom kër moo taxoon yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam doon ñaaxe mu ne tazawwadul wadudul wadud waduudul waluud na ngeen takk ñi nga xam ne da ngeen leen nopp waaye ñu nekk ñoo xam ne tamit incha allah dinañ mën a am doom ñeenteel bi ci li ci ginnaaw yoonal bi lislaam yoonal sëy mooy al istimtaacu bil xalaal daanaka loolu romb nañ ko mooy bànneexu ci lu dagan nga dégg naan xumbute dagan xumbute dagan ci sëy rek la am yéena ma gën a xam xumbute dagan ci sëy rek la mën a amee xaaw borom bi nee na nisaaukum xarsul lakum fatu xarsakum anna shitum seeni soxna seeni tool lañ dikkee leen seeni soxna nu mu leen neexee lool ci wàllu sëy la jëm lépp dagan la nga dak sëkk ko sa soxna ci li nga xam ne moom mooy euh, kal kawlal bi moo tax yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam leeral ci beneen xadis mu ne ida jalasa bayna shuabi shuabiha al arbaa thumma jahadaha wajaba al xuslu bu fekkente ni góor toog na ci ñeenti cëru soxnaam mooy ñaari loxoom ak ñaari tànkam mu yëngal xanaa loolu mooy xumb gi mu ne bu boobaa wajabal sangu janaa ba war na ci mu ne même bu fekkente ni ndoxu ku góor ki génnul le fait que ñoom ñaar ñu am tappaloo rek daldi nay war ci ñoom ñaar ñu daldi sangu li nga xam ne moom mooy moom mooy set kon ba mu des nit ki seeg soxnaam fi muy demee toilette loolu moom dafa xaraam juróomeel bi mooy at taawunu bayna zawjayni ala al masalih dunyawiya wal uxrawiya mooy ci sëy lañ mën a amee tamit diggante ñaari way dencante góor ak jigéen ñu dimbalante ci seeni njëriñu àdduna ak seeni njëriñu àllaaxira dafa bokk ci jubluwaay sëy góor ak jigéen buñ ci nekkee ñuy dimbalante dimbalante bi nag am na ci yoo xam ni war la ci seen diggante am na yoo xam ne dañ koo sopp mais dañuy ñëw rek ci globaliser ko bu ñu yeggee ne ci àq yi ñu gën ko leeral góor bu takkee soxna daf ko war a dimbali ci lépp loo xam ne la koy jëme kanam ci diineem ci ngorom ci sàmm euh, li nga xam ne mooy askanam di dox ay mbokk ila axiri ku jigéen tamit bu nekkee ak boroom kër dafa war a dimbalanteeg boroom këram ci lépp loo xam ne luy jëmale boroom këram ci kanam la muy diineem njabootam boppam waaye euh, fameem dox mbokk gi lépp lépp lépp ci biir mais bul takk soxna rek nga xam ne li ngeen séq mooy lal rek li ngeen séq mooy jox ko dépense rek li ngeen séq mooy loolu mais wax ju neex ak dimbalanteeg comprendre rek yooyu yëpp du ci am kon tey sunu jotaay mbokk yi soxna ci muur say cër mooy bii bind leen ko lu am solo la buñ la laajee lu tax borom bi subhaanahu wa taala santaane sëy danga naan benn bi ci njëkk mooy jaamu yàlla la ñaareel bi ci sëy la yàlla di jaarale li nga xam ne mooy ngir ñu mën a sàmm sunuy askan askan bi nekk lu ñu sàmm lool xam ni jaxasoo du ci am waaye day tax tamit li nga xam ne mooy xeetu doomu aadama di continuer di produiru di produire bokk na ci lu tax yàlla sant se mooy ngir ñu mën a fegu fegu goo xam ne bu dagan la doo njaaloo bokk na ci nga mën a am nobel boo xam ne bu legal la ku góor walla ku jigéen waaye bokk na ci mooy ngay bànneexu ci lu dagan waaye bokk na ci ngay dimbali dimbal dimba dimbali dimbalanteeg sa soxna wala sa boroom kër ci loo xam ne mooy njëriñu àdduna ak li nga xam ni moom mooy njëriñu àllaaxira kon ñi ngi déglu laaji bu amee laaji rot insha allah ñu tontu ko hada wallahu aalam wa raddu ilayhi aslam